asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateur Diassigui TV comme ça su ne mbégte ak contenté la ñuy ànd ak yéen ci seen ëttu xibaar mooy xibaar yi nga xamante mom moom lañ leen di tataané ci lu xewon ci li nga xamante modi euh, bëss bi comme niñ koy dooreel bëss bu né dañ leen di wax ci li nga xamante modi euh, Covid 19 bi. tey jii nii nag sur 985 tests yi nga xamante ne jot nañ ko effectuer 104 nak ñoo ci ñëwaat euh, positif waye 75 cas contact suivi lañ ci nemmeeku ak 29 cas de transmission communautaire moy manam wàllante bi nga xamante do xam foko 90 patients yi nga xamante ne jot nañoo mucc ci euh, mbass mi 24 cas graves ba némé ko nañ ko ci euh, centre de réanimation yi waaye tamit euh, Sénégal jot na enregistré waat beneen nouveau cas de décès Bataille tey mbas bi mu ngi gën di law ci suñu réew fii di euh, Sénégal nag li koy firndeel mooy ay nit ñu mag nag lañ ci gën a ràññeeku fan yi nga xamante ne bi fa la ëppee ndax bu ñu xoolee nag am député bi nga xamante ne moo di Yaya Diallo am na conseil de ministre, loolu conseil des ministres loolu nak tax ki nga xamante ne moo di njiitu mi moom ci lañ ko mettre en isolement Qui di Mustafa Niass moo koy wuutu fii ak euh, deux semaines ginnaaw bu ñu xoolee nga xamante ne mooy di premier test bi ñu wax ne ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi ameewul doomu jàngoro ji waaye teewul dinañ ko mettre en quarantaine ngir xoolaat euh, fii ak euh, ñaari semaine moom tamit nan lay def ndax mbir mi amee na ko wala déet waaye nag li ci gën a yéeme mooy nag ni nga xamante ne ñoo di ministre yi nekkoon foofu ñoom tamit jot nañ leen en isolement ndax ñoom si seen jëm bopp

la maanaam lépp loo xamante ne dispositif yi ñu waroon a jël yëpp euh, jël nañ ko maanaam matuwaay yëpp mat na waaye ba tey jii nii nag am na ñoo xamante ne seen xel dal na waaye am na ñoo xamante ne ba léegi ñoo ngi amee jàkkare ñoom nag xale yi buñ leen xaymaa ñoo ngi tollu ci 551 mille élèves ñi nga xamante ne ñoo waroon a jëlaat tey jii nii euh, yoonu l'école yi waaye nag bu ñu xoolee nag ba tey jii nii am na bërëb yoo xamante ne naam dañoo amee li nga xamante ne moo di ay jafe ndox fa nemmeeku ñoo xamante ne ñoom nag daanaka pare wuñu pour jëlaat li nga xamante ne moo di euh, jàngale bi 64 yi nga xamante ne daanaka amuñu ndox ñi ko xamle mooy suñu naataango waa l'Observateur 45 école nag amul ndox fale tamit ca Louga ak 77 yi nga xamante ne amuñu li nga xamante ne moo di ay wanag fële nag ca Bignona ñoom tamit ba léegi nii ci njàkkare lañ nekk ndax daa am benn enseignant bi nga xamante ne dañ koo jot euh, testé positif ci li nga xamante ne moo di Covid 19 bi loolu

subvention yi nga xamante ne am nañ ko ñoom nag ñoo ko amee woon waaye buñ koy am tamit ci maire yi nga xamante ne ñooy euh, opposant yi ci lool ñoom lañ ko amee ba tax na moom ci boppam nee na li nga xamante ne moo di euh, corniche bi kii di njiitu réew mi nag dina ci jël ay euh, ndogal ndax moom ci boppam am na benn plan d'action bi nga xamante ne bëgg koo tëral euh, ci li nga xamante ne moo di littoral bi waaye loolu yëpp bu koy amal lii nga xamante ne moo di aménagement bi dina ci waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di askan wi xool ñoom tamit seen xalaat ci lu jëm ci loolu. kii di Cheikh Yérim Seck liñ ko doon toppee ci li nga xamante ne mooy mbirum avortement muy maanaam yàq biir moom daanaka démb dañ koo naroon a tëcc waaye nag daa mel ni mooy na tuuti ndax moom ci boppam ginnaaw bi ñu ko placé fi nga xamante ne moo di euh, sous contrôle judiciaire maanaam dañuy gën a xoolaat li nga xamante ne moo di mbir mi bàyyi wuñ ko nag benn yoon mën naa dellu këram waaye teewul ba léegi nii enquête baa ngi wëy euh, di def li nga xamante ne moo di wareefam moom nag ginnaaw biñ ko déggaatee démb ñaari ñi nga xamante ne ñoo di euh, jigéen ñi ñoom nag bàyyiwaat nañ leen ñu ñibbi ki nga premier bi moom nag la ñu yóbbu mandat de dépôt waaye ñi ci des yëpp jot na leen bàyyiwaat ñu delluwaat fële ci seen i kër. yéen suñu mbokk téléspectateurs yi fii la ñuy ndax képpee ak yenn suñu ëttu xibaaru bés bi di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci même chaîne ak ci même heure laata loolu mën ngeen woy di xibaaru ci seen sit bi nga xamante ne dina affiché wu foofu ci seen bas de l'écran di www point diassigui tv point com